ki ñu seeti moom mooy Déthié Fall tey wax na ci journal bu ñu naan populaire nee na lépp euh, euh, euh, madame Christophe Labarre li mu wax ci Sénégal yëpp dëgg la te am na lu des moom Déthié Fall numéro 2 bu parti réew mi mooy yëkkati ay kàddu teg ko ci deru gouvernement Macky Sall Déthié Fall moom ci boppam yàgg naa dëcc ji ay kàddu Déthié ndar-ndar bu mag bi Déthié Fall borom réew mi dañ ko seeti. jërëjëf jërëjëf kontaan naa ci yéen maa ngi leen di gërëm man Déthié Fall mi nga xam ne maa topp ci Idrissa Seck euh, dama kontaan yéen mu ko Sénégal waaye dama kontaan ci li nga xam ne moom lañu doon wax est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñu yeewu ci réew mi te duñu ndékki muy premier est-ce que deuxième est-ce que est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne dañuy xëy suba ba ngoon di wër liggéey duñ ko xam muy deuxième est-ce que troisième est-ce que est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne bu ñu añee duñu reer est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne bu ñu reeree du ñu ndekki est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne du ñu ndekki du ñu añ du ñu reer est-ce que Macky Sall xam na ne pendant une semaine am na ñoo xam ne dañuy woor benn dogu tàndarma dañuy dogoo ak ndox lu tax ñuy woor wooruñu sax xëy na parce que dañ ko suñu borom moo ko santaane wala dañu gisul lu ñu lekk ak lu ñu naan est-ce que xam nga ne ci biir dakaar am na ñoo xam ne ba tey ndoxu teen ñuy naan est-ce que xam na moom Macky Sall que réew mi ci boppam am na ñoo xam ne dañuy jóge seen i kër dox ba place l'Indépendance est-ce que Macky xam na ne ci réew mi ci boppam am na ñoo xam ne bëgg nañu takk soxna te amuñu lu ñu defee lu ñu takkee soxna ba yenn njombe yi di leen dal est-ce que Macky Sall xam na ne réew mi ci boppam am na dëkk yoo xam ne boo fa demee boo bëggee brancher sa téléphone ci portable da ngay fay ñeent fukki dërëm pour am ko ndax courant egg si fa est-ce que Macky xam na ne am na ay bay baykat yoo xam ne ba tey ren gii jiwuñu ndax ñàkk jiw est-ce que Macky Sall xam na ne réew mi ci boppam am na ñoo xam ne balaa ñuy faju dañuy jaay seen ay jur jël lañ ko am ci jur ma daal koy fajee ñoom seen ay njaboot est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne bu ñuy matu ba tey dañuy yëg ci ay saret ñu leen di yóbbu est-ce que Macky Sall xam na ne am na école yoo xam ne ba tey amuñu table ci suuf lañuy lal comme ku nekk ci daara est-ce que Macky Sall xam na ne am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba teel li ñuy def moom mooy fexe ba jéem a dugg ci fi nga xam ne moom mooy restaurant yi di jël li nga xam ne moo fa des daal di koy jël toggaat ko pour jox ko seen njaboot est-ce que Macky Sall xam na ne moom ci boppam am na ñoo xam ne dañoo nekk ci réew mi di xëy jant ba soow wër fu ne dugg fu nekk làmb fu nekk dara duñ ko daj ñibbiwaat seen kër te duñu wax seen njaboot lañ jëlee ci biti ndax xam nañu ne yoruñu dara dañuy mujj indi ay problème yoo xam ne fexe ba njaboot gi tas ku nekk delluwaat ci seen kër est-ce que njab Macky sàll xam na ne bi mu toogee ci gouvernement ba tey sëy yi tas ak kër yi toj ak ñi nga xam ne ñoo ñàkk ci réew mi mu ngi gën a yokk que Macky Sall xam na ne ci biir Sénégal gii am na dëkk yoo xam ne bi fi Senghor nekkee Abdou Diouf nekk fi Abdoulaye Wade nekk fi mu Macky Sall mu toog mosu ñoo am li nga xam ne mooy robine ndox mu neex xamuñu ko ci forage nañuy roote ci teen nañuy bëttee ba tey ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ci aada ak cosaan di rawale xale yu jigéen ñi maanaam jigéen ñi nga xam ne dañuy matu am doom mosuñoo jaar hôpital ci ay kër traditionnel lañ koy defee te loolu nekk na loo xam ne warutul est-ce que Macky Sall xam na ne réew mi ci boppam dafay arrière avancé wul demul dikkul taxawul tëddul caaxaanul dafa nekk ci tërëf tërëf mooy maanaam ku tàggoog sagom mel ne bu duñ ko doon jëmmal day mel ne koo xam ne da nga naan sàngara di tërëf ñu yaakaar ne gauche nga dem nga tërëf ñu yaakaar ne droite nga jëm nga tërëf ñu yaakaar ne ginnaaw nga dem mais doo dem ci kanam mukk ndax boo demoon ci kanam sax tey man di ñu xam ne yaa ngi avancer waaye defoo loolu est-ce que Macky Sall ma ne est-ce que xam ngeen ne Macky Sall ci boppam yëgul ne est xam ngeen ne Macky sàll yëgul ne carrément bi muy wër ci dëkk tuutaan yi ak dëkk dañu ñëw ñi nga xam ne ñoo ko dooleel tey ba ñu jox ko kàttan ba mu gañe ndax bu ñu nekkee ci Dakar di campagne mu yoxosu nànk dem ci réew yu gàtt yi ñooñu nga xam ne ñoo ko dooleel ba daal di koy jàppale tey mu am ndam lii fàtta na leen ba ñooñu tey ku ci am portable benn yoon nga koy chargé boo ci wuyoo ñaar yoon ñetti yoon bu déchargé sa njaboot bi nekk Dakar war laa yónnee xaalis du la ko mën a jox ndax amul courant bi tax nga war a jot message boobu yóbbu est-ce que Macky Sall xam na ne sondeel tey la gën a jar ka lamp yi nga xam ne ñoo xam ne réew day saan bët ya ci boppam neexatul day tatatafu di lambatatu di tatatafu ba dootul xamati fu mu jëm est-ce que Macky Sall na am na ñoo xam ne weeru koor ba lekk am lu ñu naan est que Macky Sall xam xam ne mooy Cheikh Anta Diop étudiants yi ci boppam am na ñoo xam ne dañoo burle amuñu inscription dañuy naqasaale di jàng te kenn reconnaître leen fexe rek ba am bagage intellectuel pour génn ci réew mi dem est-ce que Macky Sall xam na ne docteur yaa ngi gàddaay dem ci yeneen dëkk di faje ay malade te bàyyi Sénégal est-ce que Macky sàll xam na ne ci réew mi ci boppam pour nga fajo lu mu gën gaa gàtt même bu dee siburu la war a bopp bi metti danga nga si dépenser ñaari junni est-ce que Macky Sall est-ce que Macky Sall <laughs>